alors di ñaan déjà Abou Mamadou Sy Yoro Diallo ak Ousmane Ndiaye muy firndeel rek ne liggéey bi ñu def liggéeyu équipe la journaliste bi la ñuy gis xëy na waaye la muy wane bu cadreur amul du am fa mu nekkit bu chauffeur amul du am ñoom la sunu borom boole tey c'était des destins liés ñu wuyu ji ko dans des condition tragiques di ñaan li njëkk mooy ñu ñaan yàlla fa ñu jëm gënal leen fu fi ñu jóge leneen li ci topp mooy euh, ñuy ñaan tamit sunu borom mu defalu ay seen mbokk yi xolu muñ ndax dee moom du jaas ñëpp koy def waaye bu dalee ci kaw ndaw day gën a métti ndax bu dalee ci kaw ndaw rek c'est une mine d'or bu ñu ñàkk euh, c'est c'est c'est c'est c'est un destin boo xamante ni fu nekk mënoon na fa dem lu nekk mënoon nañ ko jëriñ seen réew ak seen continent tey ñu dem wuy ju seen sunu borom ci condition yi nga xamante ni wuy ju nañ ko su lu weesoo nag man dama jàpp ne bari na nu ñuy ñàkkee ay nit ci réew mi yoo xamante ni waroon nañ ko mën a éviter bu ñu góorgóorlu woon tuuti ci xool yan xeetu oto lañ am ndax oto yi ñuy daw ñoo ngi war a daw ndax ñu koy ñi ñu koy dawal war nañu dawal ndax tali yi ñuy daw war nañ ci daw yooyu question yooyu buñ ci tontoo rigoureusement au-delà de l'indignation parce que mën nañu indigné wu mën nañu naqarlu fait bu impressionnant am na mais ñaata yoon la fi fait bu impressionnant bu impressionnant comme bii am waaye buñ ko waxtay waxee nii rek après pare nañ ci. dogal yàlla day am ñun ay way gëm lañ dañu gëm waaye am na ci loo xamante ni. loxo c'est de l'irresponsabilité notoire caractérisée souvent moy indi ay c'est l'irréparable donc encore une fois nañ ci jang nañu ñaan nañu masawu seen mbokk bu baax ñun ñoko bokk ndax ci ñun lañu bayiko leen dal dal kenn ku nekk ci ñun dem bayyi ñu fi waye ñun it mënon dem ñun dinañ dem donc bu amee nañu xool lan lañ ci war a jàng euh, ak euh, nan la ñuy euh, def daal ba yu mel nii ñu mën ko éviter ba nga xamante ni dinañu mën di déplacer wu ci ay conditions yu wóor delluwaat sunu kër te du ñu am benn jafe-jafe jafe bi nag am na ba pare ndax fi mu ne nii booy jógee sa kër moom lu ne dinañ la ko ñaanloo léemu bu ne dinañ la ko léemuloo ndax xam nañ la le risque est grand waaw donc yooyu yëpp lu ñu war a mën a saafara ban en tant que humain tout court. waaw koo xamante ni en tant que ndaw tamit waaw mooy li ma wax rek ñun ay ñun ñëpp dañu dañu dañu dañuy rëccagum ci lu mel nii ndax mënoon naa nekk ñun waaye nekkul ñun ci abu Mamadou Sylla dal ak Yoro Dia ak Ousmane Ndiaye ñuy ñaan rek yàlla mu defal leen euh, tawféex ñu eggalee seen ndaw aljana euh, mu. dolli leen yërmande mais surtout sunu borom defal xolu muñ seen i seen i mbokk ah, parce que je pense que loolu tamit lu métti la ah, ndax ñi ñu fi bàyyi tey ah, waaye mën nañ cee rafet njort ndax ñoom mën nañoo wax ne ay ay martyr lañu. ndax li leen yëkkati woon mooy am lu ñu dundee lu leew yaafu suñ ay jàmbaar lañ xëy doon wuti lu seen njaboot dundee ba sunu borom moom leen kon ñaan yàlla rek mu dolli leen yërmande dolli leen njëggal te yëgal leen ci àjjana euh, xoolaat code que euh, liggéey amuñu contrat bu en charge amuñu assurance amuñu rien dañuy liggéey du dëgg du du dëgg du yoon. du dëgg du yoon ndaw yi liggéey liggéey dafa am solo ndax day tax nit ki sàmm ngorom ak diineem su ko nit ki di def. dem il faut que les femmes koy la le waxante ak ñom ñu mën ko def bari na ndaw sonn ci rédaction yi bari na ndaw souffrir ci rédaction yi bo souffrir sax ba pare diko bolé xam-xam sax ne waaw ay da nga ñew ci rédaction bo xamanteni war nañ la jappalé ngir nga ko xam-xam alal c'est catastrophique parce que l'absence de formation dans les rédactions aujourd'hui aussi, ça me fait peur. da ngay nous rek le micro jox le dictaphone ou jox le bic nga à dem sur le terrain Si avons gunge bi ci war ak saytu bi pour nga am ko problèmes. poser problème nous sacrifier la avons na seen journal Bahrek. wala nañu nañu remplir seen journal waaye yow daal est-ce que yaa ngi dolleeku xam-xam wala déet du leen yitteel waaw bu ñu la xañee xam-xam bi xañ la nga dem jàngi parce que ndaw li buy doog a ñëw dafa yeggale jàngam ci biir boîte bi waaw moo tax ma jàpp ne il faut que yooyu yëpp ñu xoolaat ko bu baax a baax euh, parce que man damay écosystème mu média yi daf ma intéressé trop parce que dañu am solo lool ci suñu démocratie bi nga xamante ni moom la ñuy tabax donc il faut que tayji jii ñu gunge ñooñu nga xamante ni pas seulement les journalistes mais les professionnels des médias fi mu ne ba ci chauffeurs yi sax parce que bari na chauffeur bo xamanteni tay xeyna joggé rédaction am lay def dem Radisson dem téeru bi dem fi. bés bu wéré gën dem Kédougou est-ce que wadjal nañ ko pour mu daw autant de kilomètres c'est des problèmes yo xamanteni war nañ ko poser est-ce qu'on a des chauffeurs assermentés yo xamanteni suñu waree génn Dakar tay dem fa gën sori ci Sénégal ndax Wajal nañ len ci jumtukaay pour ñu mën ko def ou pas ah, donc lool yëpp yu ñu wara bayyi xel la yo xamanteni tamit man jàpp naa da fay respecter rek il faut que ñu respecter la dignité humaine et que loolu il faut que aussi les employeurs soient beaucoup plus regardants par rapport aux conditions yi nga xamanteni mom moom la nit ñi di liggéey c'est valable dans tous les corps de métier mën ñëw nekk ay ndaw nekk ci sa ci sa dispositif di la gagner xaalis bu bëri ñoom ñu nekk ci condition yu tumranke loolu mënul nekk mënul nekk il faut que les fruits du labeur soient redistribués soient redistribués équitablement pour terminer